Rewmi TV mbokk yi mbégte la waat ak contentement saa su ne ñu jàkkaarloo ak yéen di leen waat bu baax a baax encore une fois fu waay mën a nekk si àddina di ñu bàyyi xel à travers li si Rewmi TV ñu ngi lay nuyu di la ñaanal jàmm te di ko sàkk su yéen ah, di nuyu kilifa diine ak kilifa aada yi bu baax a baax di nuyu suñu sëriñ sëñ Babacar Sy Mansour xalifa général kulu Tidiane hmm, yàlla yàlla suñu borom yàggal ko fi loolu ba naal bi nga xamante ne naal ko biir kër maamam Seydi yàlla may ko mu àggale ko ak jàmm ak mook ay frère am ah, di nuyu almuntaxa borom mbégte mi di xalifa général kullu murit moom aussi yàlla suñu borom yàggal ko fi ba naal bi mu naan biir kër maam Cheikhul Khadim yàlla may ko mu a baax yàlla defal leen jàmm waaye di nuyu borom kër gi comme ni nga ko faral di waxee rek borom ñoo koy ñuy baax di ko ñaanal encore une fois lu mu mën ren yàlla na mën déwén lu ko ëpp di nuyu maam Cheikh borom tab Serigne Touba Khayra waaye di borom taab Serigne Touba Xayra moom aussi tamit ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax laay les pro suñu waare ñoo ngi koy nuyu di nuyu ki nga xam ma ñoo ngi koy kontaane bu baax a baax mbokk yi tey nag yaakaar naa dañoo génnaat ci beneen angle te yaakaar naa fi ngeen ñu gis nii décor bi ngeen gis suñu ginnaaw raar na ñu leen di indil décor bu mel nii moo war a tey ñu génnaat équipe bi macha chaque jour di xool li nga xamante ne rek suñu fi présenté internet yi dañuy ñu mel suñu doomu ndey la grand expert de la lutte sénégalaise monsieur Lambalogue fas yéene seq moom waxtaan bu am solo ci combat yu nekk suñu kanam Ama Baldé Gris Bordeaux la 30 la Zos ak ki nga xamante ni mooy Liss Ndiago la 30 la Gouye Gui ak Arafas la 30 la waaye laataa loolu Ama def na démb li nga xamante mooy open press am foofu sa Alassane Diogo ñu gisaat beneen Pikine bu bees 200 pour cent bu ñu doon woote biir Pikine ñu gis ko démb du ñu guddal dañuy nuyu Lambalogue la grand expert bàyyi ko mu nuyoog yéen. ñu waxtaan ak làmb la tey dama bëgg ñu bëgg lañ teg génn mbokk yi si beneen anam làmb mbégte laay amaat saa su ne jàkkaarloo ak yow di la nuyu di la bàyyi nga nuyoon teg internet si réew waaw waaw salaamaaleykum salaamaaleykum monde entier salaamaaleykum Sénégal waaw di nuyu ñëpp di masawu ñëpp di ñaanal ñëpp di sàkku si ñoom ñaan waaw di ñaanal Sénégal gépp am jàmm di ñaanal jiitu réew mi mu am jàmm bu baax ba am esprit bu mu mën a liggéeyee réewam réewam jëm si kanam waaw di mbé amaat mbégte bu baax pour jàkkaaroo waat ak yow sama waalo waalo bi kenn du yow waaw waaw li may wax rek bu ngeen ñëw mbuus nga indi te ñaan nga yàlla yóbbu raw mbuus waaw gën a góor góorgóorlu rek di ko nuyoo waalo waalo yëpp parce que gis nga boo fa nekkee di dem feet sax nit ñi dañ lay woon naa la ana lamb waaw di nuyu ñëpp képp kuy doomu waalo waalo maa ngi lay nuyu di nuyu sama benn grand boo xamante ni nag mënuma kaa bañ a nuyu mais mu naa am sax du ko yëg wala du seetaan lii mais dama am fierté pour nuyu ko quoi muy muy muy muy Modou Fall Modou Fall transpecteur Eh, waaw waalo waalo boobu kon waalo yàgg naa am ay gaynde ndakaaru ndax Modou bu ma xoolee man bi may lang mm-hmm. nekk naa garage am mm-hmm. ah, ma yor ma nekk si oto baay aas Modou nekk si biir garage bi mm-hmm. mais def na fa ay jéego yoo xam ne amaana moom xamuma sax mais bis boo ma jàkkaaroog moom moo xam ne moom ginnaawam laa yaroo te ni mu liggéey loolu lu rafet la def te sama kanam la ko doon def mais amaana xamuma woon nag mhm. xamul woon ne sax dinaa génn bay wax lii mhm. mais loolu lu ma yàgg a denc la mhm. waaw si waalo waalo rek laay wax na boppam Modou Fall am na jom am na fula am na fayda du tooñ safoor du yeb safoor du teg àq safoor te day xottil safoor di ko jox waaw te ay otoom bu la jox doy dëgër waaw loolu di ko sante waalo waalo yëpp di ko mm-hmm. sante waa Touba tamit mm-hmm. ak waa sama dëkk mm-hmm. Taïba waaw Taïba Taïba waaw sa maam boobu wëpp wëpp wëpp Serigne kooku def na si man de sa maam boobu moo daan gis tànk rek waxla la ni mu sant mu gis la rek xam ne yow am na loola topp mais nag moom nekkul woon ku siiw quoi kuy siiw si ñaanalaate mais luy wàllu am luy wàllu doomam boo jógee Ndakaaru ñëw rek toog ko moom mu wax la lan moo ne si yow boo waree moytu mu ne la aas moytu soo waree attaqué mu ne la aas dàqal fas yi yow yaa téye sa bopp. waaw loolu tamit maa ngi koy def repère si moom di ko ñaanal fa mu nekk. Mm-hmm. fa ak ñam fa fekk ñëpp. yàlla na leen yàlla xare àjjana xare ñëpp àjjana. may jàmm mbër yi may ko entraîneur yi. Mm-hmm. may ko waxkatu làmb yi may ko supporters yëpp. supporters yi yàlla nañu yàlla dem ñu supporter ji ñibbisi. Mm-hmm. te kenn du bañ a xoosu kenn bañ a xoos kenn. si barke yonent bi. macha allah balaa ñu ñëw si Ama Baldé da nga tudd léegi tudd waalo waalo mu am benn promoteur bi nga xamante ni Cheikh Omar tudd. yore structure bu bees bu tudd alburaax dëkk foofu sa bokkal bërgi démb dafa ne ma làmbaloog bëgg naa mu ñëwul bisu le 28 fii sa bokkal si combat bu rëy bi nga xamante ni tëgg naa ko ma ne ko kan ak kan la mun ma mbay jaw bu bokkal ak Elton bu dagan Elton yaakaar naa xam nga ko sama grand bi yaakaar naa loolu tamit saa kees war na fa bëre ak nga xam mooy Big Rouge lan ngay wax Cheikh Oumar mi nga xamante ni moo décroché affiche bu ñu mel te bëgg nga teewee bis bi ñu mel la sax parce que tamit Cheikh Omar li muy def noonu bu ko ñëpp defee mu dem de. Mhm. li ma koy ñaanal kañ mooy na ko autorité jàppale. Mhm. jeunesse ba fa ne bëgg làmb jàppale ko. surtout ça waaw surtout jeunesse ba. waaw surtout ba ne. bëgg làmb jàppale ko. Mhm. te xam ne gis nga fi ñu koy waxee. xam nga fekkewu ko. te ñëw na si capitaine bu mag bi. muy làmbaloog. monsieur le tey làmb joo fi wax te làmbaloog waxu si def naa du neex de. làmb bii ñoom Ama Baldé avant ma siy génn. daa mel ne du làmb de. mais bi ma si duggee. mel na ni làmb. làmb ji nag gars yi xamuñu ñi ko moomoon lambi Ama Baldé ñoom ñii li si ne lépp gars xamuñu ko lambi jàmbur lañ jaay Aziz Ndiaye Aziz boole yëpp tëgg boole yëpp tëgg si benn tàkkusaan Ibou moo tëggoon lamb jooju Ibou production da nga ko fàtte Ama Baldé Gris Bordeaux du woon Aziz Ndiaye ko tëgg Ibrahima ko tëgg mu yàqu lu mu tëgg mu yàqu huit combat moom laa fi doon wax naan ko mën ngaa saraxe ginaar gu ñuur ba ñuy déyoo si jamono yi lu mu tëgg mu yàqu lu mu tëgg mu yàqu ba mu demee ba attanutul combat bi da kaa wéer gaynde gi wop rek tey lay jàmm tamaate te ngay xam ne pomme du new salade du ñax. jërëjëf ki daan saam ñaata ak ki daan benn ñaata bokkul. bokkul waaw. jërëjëf yaakaar naa euh, ñu am benn cri de bi nga xamante ni Pikine yàgg na ko yàgg na yàgg na ko joytu yàgg na ko wax muy ko doomaanu Pikine yi dañoo yàgg bëgg ñu nekk benn doon say euh, ba ñu gis open press bu musul am biir pikin magu pikin yeeg mbër yeeg xale yeeg ñëpp génn bootu si ginnaaw Ama Baldé nan nga gisee open press bu ñu mel balaa ñu ñëw si Ama. non bu rafet. dama ne noonu Pikine bu bëggee booloo Ama Baldé koy boole. Hmm, si vidéo yi. yaay wax de. Hmm. man waxaatuma résultat yi. waaw mais fàtte ngeen loolu. Hmm. xeeñ na wala xeeñul. bi Ama xewlee bi mu njëkkee xewlee ñëpp ñëw nañ wala ñëwuñu. ama seen si buntu bi la ma romb. presse si buntu bila la ma romb. soq si buntu bi la ma romb. ak Boy Niang. Boy Niang fekk naa ko mu dugg. mais ñoom presse ñoom ñoom soq ñoom ñëpp. bi ñuy jàll si buntu bi lañ ma romb. waaw tey nag moom lu may wax si Ama Baldé dama naan si bunt bi la ma fekk. Mm-hmm. waaw loolu la yàlla dogal. ndax lan non damaa jot a dugg bi may dugg Ama dem na. benn waay moom moo fa fekk maa ngi koy félicité sax mm-hmm. mu dëkk Pikine moom it mm-hmm. xam ne làmb mi ñu romb nii si bunt bi yaramam daw mu ne mën na foo jaar ngay dugg rayante na si sax ba wut ah, accréditation jox ma ko ni ma dugal. Mhm. mais bi may dugg fekk na Ama dem. kon mhm. kooku naanatuma si ñeex mi. mais damaa yaakaar ne noosu pikin googu xoolal ni mu toll. Mhm. Ama lamb xañ na si. xañ bu baax a baax man am naa pikin ay fans nag. na gars yi mais lu ñoom ñoom. bo quelque booy la sax du mbëri du ñëpp parce que bu ma wax Pikine rek waa Pikine yëpp jàppe ne ñoom laa wax parce que Pikine ñoo yaatal ba ma ñibbisi xoosuwu ma defuma dara ànduma kenn bi may dem waa Pikine ñoo si doon jàpp naa ma laamu day dugg ñeneen ñooñu Pikine lañ dëkk kon waa Pikine ñëpp du ñëpp laa wax de mais dafa am ñoo xamante ne dañuy siisu ndax ndax li ma comment décortiqué woon si làmbalo Modou Lo bi moo leen topp ba léegi nii nii wala lan la parce que man du wax Pikine lu ñaaw li may wax Géejawaay du ma ko wax waa Pikine ah li may wax pikin lu may wax Géejawaay du ma ko wax waa Pikine mais gis nga tey ji li yàlla dogal waaw gis nga fans yi gis nga de yaa ngi vidéo fàtte na ni sax mm-hmm. dañuy vidéo pour bëgg a ñëw si làmbalom waa léegi nag ñoom bu ñu mënee doo dugg nag booy dañuy reyante mais waaw police yi ñoo dem ba dugal moom ñoom mm-hmm. bu ñu demee ba ñoom ñoom ñu bokk si làmb làmb joxee amul dagg mm-hmm. billet amul dara amul billet amul dara man may nitu làmb ñëw ba si làmb ji ak di ma dund si làmb Pikine seen mbëri bëri wax naa si ñoom ba tax ñu futteeku def doon mbër wallaahi parcelle seen mbër yu bëri wax naa si bañ futteeku ba nekk mbër man damaa nekk si mbëri yi di leen defaral mhm. mais nekkuma si mbër yi di leen yàq parce que man du ma xam ama jom ji mu am mhm. ak fayda mu am mhm. ak ama chaque jour nga gis ko seen buntu kër mu def ataaya boo yëpp naan mu def yàpp boo yëpp lekk mu dem kër sëñ sëñ Abdou Karim takk ndigli di liggéey kon ama man damaa ñëw pour naw ko mais ñëwuma pour saboter ñëwuma pour di leen yàq na si ñëpp bàyyi xel te xam ne jéggal naa ñëpp nag baal naa ñëpp wax dëgg yàlla parce que maag Pikine benn lañ samedi ak dimanche la kenn ki ma fa bëgg tax na ma baal ñëpp xaayaan ku dégg séeréer xaayaan ku dégg séeréer macha allah dañuy taxaw ba léegi rek si euh, bootu bi nga xamante ni waa Pikine actuellement bootu nañ ko seen ginnaaw doom seen frère Ama Baldé parce que Baboy gëj naa ko gis si li ñu mel moom dem gis naa ko ñoom Père de Gaulle ak ñeneen ñi nga xamante ni def nañ nekk si làmb est-ce que bu booloo doon benn xaj nañ si mbër dama ne waa Pikine la waxoon ma Lo laay waxaat Ama Baldé mm-hmm. Modou Lo damaa dem open press am na ko waa parcelle wàccoon nañoo ak yow mm-hmm. mais Ama waa Pikine wàccoon moom Ama moo deseeg ñoom yàlla na ko yan bi yomb que gañ mais Pikine tey jii amul kenn koo fay xas ndax bu Pikine bu kenn manqué woon bu ñu xëyee kooku rek la ñuy wax mais nii ñu def yàlla leen si yàlla boole ci boole parcelle def ko jàmm gën def ko tëngeej def ko tañ def ko si fair play rek demal nit yéene koo ko gën dem bu ànd ak yéene lañ soxla mais soxla wuñ dem bu ànd ak seetlu ndax nit loo xool si moom moom ngay gis ne ñëpp teg ci lengay te xam ne ñoom ñoo bokk drapeau Pikine mhm. ñooy xàccandoo ñooy dóorandoo mhm. bu Ama Baldé daanoo waa Pikine a daanu mhm. mais bu bu bu Ama daanee waa Pikine a daan bu Gris daanee waa Fass daan waaye bu Gris daanoo waa Fass daanu nañ man Guédiawaye noonu laa ko jàppoo bu Guédiawaye daanoo ñun ñoo daanu mais bu Guédiawaye daanee ñun ñoo daan kese di ko gisoo amaa Baldé jotoo dugg mais dafa am quelques extraits bu mu lay on nga xool amaa ñu waxtaanee forme Ama Baldé noo ko jàngatee amaa ngi nii no xam nga xam nga xam lii rek daa meti quoi mm-hmm. boo demee bañ la koy won ta nga demoon mm-hmm. mais ñoom tamit nga seen yaram daw quoi xoolal lii lu ko dàq li lii waroon naa faa wax jëlal loolu wop wop wop jëlal ba xale bi njaab bi xam nga lii manqué na ko waaye nag yóbbante koy fóot saabu sala boo bañee sama yuuxu yi yuuxu naa fa presse ne la xoolal njool mi ki ba commencé ndekki ñaari ndekki mm. mi ngi si tiktok yi wala nekku si yuuxu naa fa beneen mbër bu dul moom Pokola bi ma ne kër Ama Baldé Pokola fu tey pokolaa am na bës wala amul bës man nekkuma si wax nit mu daanu man damaa jég mbër mm. mbër bu si bëggul ma laala la mm. bis bu arbitre soufflé nga xam ne pom du new nan bi ak yooyu euh, xoola ama bi ak ama open press bu njëkk ba ñoom na ñoom laa war a laaj ama bi xoola ni mu saware mm. xoolal xoola ni mu oyofee ak ama bële da doon soox si biir géew xoola ama ni mu doxee normal xoolal xoola njàpp bi ah, kii léegi mu wér gée si giri la ñuy xamee ba xam wér na wér a wérul mm-hmm. mais nag ama mënul toll neen ba jaaxal giri nag non non non non ama calcul bu mata ko si raw nii la toll ak nii laa ak xoolal ama ndax pare na duy mm-hmm. wax bi mm-hmm. ama des na lu bëri lu neexut a wax waaw si naka lan la des lan moo des lan moo marché gul maanaam ama ama ama des na contact bu bari toog téye boppam gérer boppam booy xoolal Modou xoolal Modou Lo xoolal ama ama mooy gën a riche ñooñu ñu ma la tudda si guddi yi ñu tool ndax ñooñu guddi yooyu ñu tool bi ñu siy tool amuñu ku ñuy xool ñoom dañ doon demal seen bopp ak seen ngor ak seen jom ba am expérience si lamb commencé di si expérience mais bu ñu amul woon expérience si làmb duñ dem ba toll foofu di demal seen bopp parce que xoolal ëmma ba mu tollee bëree ba léegi Pikine lay bëreel mais musul summeeku nga ne accam musul nekk fogori chaque jour ku muy bëreel ko koy favori te chaque jour mu xeex te saa yu Pikine soxla victoire Eumeu ñëw taxaw dëggal boppam kon Ama Eumeu moomu la war a gën a roppi ni Eumeu def la war a def dugal victoire waa Pikine nag buñ commencé dugal victoire kenn du leen téye te buñ booloon dañuy naqaree daan te Pikine ñoo ko moom actuellement booloo giri am na xew de dix heures quarante cinq bu fa fekkul fan si giri duñ am place da maa la wax loolu booy ñoo namm Ama waaw ama yee bi tamit nag dafa gëj tuus bu dëgg bu sax bu ama ak Roland foofu ku fa bëgg tuus da ngay doyal Ada Fass nag Roland ah ñooñu ñooñu bis bi hmm. luñ la si fayee ku jar ko damay ñaan yàlla supporter yëpp am am am am am am tuuti tuuti dégg quoi hmm. waaw xam ne luñ fi yàq suñu matériel la te booy bu ñu fi gaañ sunu booy la booy bu ñu fi rayit sunu booy la kon nañ dajale boo yëpp boo yëpp mucc te xam ne lii benn bis kese la bu jeexee jeex na bis mënul weesu bis dàqale wuñ fi gaay bis bis motloo Ama Baldé gënoon a riis mm. kon bis bii waru ñoo mën a sonal nañ ko seetaan ndànk bu Ama defee faay ñu xam ne faay la mm. bu Gris defee faay ñu xam ne Gris def faay seetaan bi mën a neex commentaire yi mën a neex macha allah ñëw si ndoxtu bëre kan nga jàpp ni moom la bëree gën a arrangé si bile combat. non Ama la bëree gën a arrangé mais Gris xeex a ko arrangé. Hmm. kooku waxoon naa ko si dama koy waxaat. Hmm. Ama xeex bi bu mu yàgg. Hmm. mais na bëree ba yàgg parce que Ama Gris bëree rek la ko Ama mën a sëlëñ sëlëñee gañe ko ndax Gris bu sëggee du gaaw a jóg. te Gris bu sëggee day day def kaat api kon Ama na ko fexe rek runkum jàmmalee ko. te Ama bugguma mu tamit mu mu arbitre mu taxaw benn place di léewtoo moom mu dam yee latéral moo ma gënal sax mu dox si kawam. Ama Sy waaw merci parce que mbër daa am kubéer yooyu duggee quoi mais Ama sañ-sañ lay duggee te sañ-sañ du mbër sañ-sañ si biir géew nga koy wone si biir kale mu leer na la waroo koo def sa sañ-sañ may la nga def ko mais arbitre ne péri nga doxee sañ-sañ baaxul boo ko defee xeex ka day def latéral rek jam la ko te mun na la sonal amaa na dam yee combat bi bu ko dam yee mën na si am lu bari parce que mu diiree moom la war a arrangé mu gaaw Gris Bordeaux la war a arrangé waaw mhm. kon na ko diire parce que ama amatul lu muy diriger ama la ñuy xool lan la am capable mais forcé wuñ ko si lan la capable parce que ki muy bëreel jeexalagul cent pour cent kon na def ndànk-ndànk parce que moom moo soxla victoire. waaw boo soxlaa yenn victoire da ngay def trois attaquants ci kaw. Mm. parce que bii bii nga bëgg. Mm. mais boo bëggul bii nag da ngay defar défense yu baax bàyyi benn ci kaw. Mm-hmm. kon Ama bii la bëgg na def trois attaquants. trois attaquants yi mooy mu dem ak maayinam. aj gardam wàcc ci tànkam déglu déglu giri comme ni mu koy dégloo. Mm. arbitre saa yu ne prix giri moom lay déglu. mais si mais si mën nañu xaar daan ba ni gang wëlbati gang. non mën na si am parce que ay bërekat lañ kuñ si palaakeem nga jaaxaan. maa la wax loolu. kuñ ci kuñ ci nga jaaxaar ñoom ku sa rédaction dem ni ñàkk nga. waaw ku xas ba perte équilibre rek ñàkk nga. parce que dañoo yokk poids ñoom ñaar ñëpp lu kenn foogul bëre bi mën na dem sax ba match nii. déedéet waaw bu Ama doxul rek bëre bi du dem. kon neex si Ama Baldé la dépendre su ma la dégg. waaw bu neexee si amaa la bu naqaree si Ama la. lamb wax kon Gris Bordeaux kon lu mu am si lamb la am ak taxaw xaar ak calculer ak sarax ndongo daala war mu cof. waaw bu tibbee noo tibb ak boppam si giri bu ko defee si Ama Baldé jeexal. non non non Ama du ko ñuy song Ama ba nga ko daree xam si bëre ba léegi mooy songe waaye kenn songagu ko. dégg naa dëgg. da wax bi mais bis boo ko songee nga gis bëre ndax Ama mbootkat la. waaw moo tax giri giri giri bu neexee Ama la bu naqaree Ama la. macha allah ñaañu si tamit nekk na mbër boo xamante ne buy déglu benn son bi du beneen Ama lay doon. Ama yee bi. ama moo yëngal Pikine ama yaa yëngal Pikine ca car ca car góor góor góor góor góor góor hop hop hop loolu dafa neex loolu même boo dëkkul Pikine buñ ko bàkkee sa yaram day daw parce que man tamit damay bëgg loolu quoi parce que làmb noonu la làmb làmb nekkul ay xeex ay yii non gars yi niñ dëgg a def làmb du làmb làmb foo ree ku dàq tuus ku dàq génn ay terme waaw xam nga booy nee na yëmbal am naa siis am na lee ak suus xam nga boobu temps la daa mujj ñu naan génne leen suus bi ah. wàññi leen lii ah. mais déggoo ko daan bu leen woy loolu mais da ngay dégg ñu naan wàññi leen wul ngeen siy wax hmm. waaw woy bi neex waa parcelle dañuy raxal gu gu waaw loolu xam nga temps la hmm. loolu kenn ku ne am nga say kii lébu yi na riiroo waaw nga xam ne lébu la ah séeréer nga dégg mbay nepp bu yuuxoo ba doomam jooj doom baabu ngom ji waaw moo taa nga yëngal nag. ay waay ma Momo waay. yàlla na ko yàlla la fa cat. mais ay làmb lok. Momo daa tëgg ba loxoy koor. da lay nuyu rek nga xam ne booy bi ndeer dëgg la. macha allah loolu la géwal di. laaj fu àddina jëm ak yow laa bëgg a xam. non xam nga xam nga xam nga produit bu neex a jaay moo neex a jaay. mais produit boo xamante ne ñee ko soxla ñee ko soxlawul boobu neexut a jaay. place ba ko soxlaa rek nga koy jaay mais man laam bala ñu maa xam muy si kanam. foo dem jaar bala ñoo maa xam muy si kanam yàlla ñu yàlla may fanu gudd rek fekkee ak tal ba nga xool waaw ñu conclure si Ama Baldé yaakaar naa Ama Baldé dafa soxla victoire Gris Bordeaux soxla victoire ñaar ñu soxla victoire war a dajee si benn parc lamba risque lamba jooju moo tax mu neex tëjal bunt bi waru leen boole fii waaye doon jaay bu arbitre ne pir mu lamb wuro hmm. wa dem këng waxi mag dem dañ tàll bàgg war mbaam wëpp pëpp pëpp pëpp arbitre laal sa yaram laalaat sa la tourneel fa fa ngay xamee mbër bu tourné ñëw taxawaat na mu taxawee mu changé ko riig ko rek nga xam ne kii mi si wala néew si waaye bu taxawaay ba changé rek taxawaay ba baaxul rek nga xam ne mbër bi nalaw na bu yàgg kii nekkul si làmb ji noonu nag ku xam taxawaayu mbër a koy xam mais ku xamul taxawaayu mbër mu noo xam ne Balla Gaye nii lay taxawee normal wala nga ne Tapha Tine nii mooy taxawaayam wala nga ne amoon nii mooy taxawaayam mm. loolu ko xam mbër da koy def mais mbër nag bu fekkee ne yow da ngay liir ay takkaay wala ngay liir ay daywaay mm. doo mën a am xam-xam si mbër mbër da ngay xool tey ji li muy perte loo nga xool ko bu baax mm. suba li muy gañe nga xool si bu baax xam ne lii mooy forme sa waay mais lee mu daan indi du forme mbër yëpp nag noonu laa leen xamee mm-hmm. ndax mbër boo xamul bu amee doole teem nu muy mel munoo xam-xam-xamam nu muy toll te Ama Baldé dégg changé waaw maa ko waxoon Ama bu xeereeree day day am doole. mais bu nee pecc amul doole. mais démb ñuul la de. démb ay daa ñemee ñuul gars yi léegi ñu ngi jënd ñuulal sax di ñuulal ndax bañ làmb wax <laughs> wallaay ndeysaan. macha allah am na solo mi ngi noonu rajo yaakaar naa Badou euh, si biir loolu yaakaar naa bu ma juumul tamit combat spécial ba